oustaz Moussa ko ture maa ngi dëkk HLM Tëngéej donc ñëw teewal fi sama mbokk yëpp teewal fi waa HLM Tëngéej itam ah, suñu jàkka ji foofu HLM imaam wax ñu ko démb ñu daal di mobiliser wu ñi mën a ñëw ñëw pour ñëw teewee bés bi incha allah. waaw xam nga xam nga Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa doon ci li ñu yàlla wax ne koo xamante ne moom moo ñu war a gënal suñu ndey gënal ñu suñu baay. gënal ñu suñuy jabar suñuy doom gënal ñu suñuy suñ suñuy pap donc te ku ñu saaga sa baay wala sa ndey nga daal di mer donc kon moom moom moo jiitu ñooñu ci ñun donc buñ ko buñ ko ŋàññee jullit yëpp yëpp yëpp war nañ mën a génn loolu moo waral tey jii suñuy tànk ñu ñëw fii incha allah non moom kay moom kay ñi ëpp si jullit yi maanaam jullit yëpp yëpp yëpp mënuñu ñëw ndax am na ñoo xam ne dañuy am ngant am na ñoo xamante ne bu ñu waree déparé fële ñëw si dëkk yu sore yeeg yooyu c'est bien que loolu am sax mais amna a ñoo dañu ñëw finance dañu ñëw man si suba tel tel tel la fi ñëw donc nit ñi ñëw nañ appel bi kuko gis duko nasaxal duko nasaxal xamnañ ne ñi ñëw nañ bu baaxa a baax a amna ñu ñibbi té amna ñu ñibbi liñ ci ñaan liñ ci doon ñaan yalla yalla defal waaw man da doon doon ci gouvernement bi président bi si parce que gis nañ ko mu dox en français yi demee noonu mais lii itam xeex la xeexam la moom ci boppam euh, ak xeex la xeex xeexam la ci moom ci boppam parce que moom moo ŋànk ŋàññ moo moo ŋànk réew mi jiite ko te itam moom jullit la incha ah xëy na yitam dafa am gànt mënees na ko jéggal bu fekkee dafa am gànt waaye ñi war na fi ay ay ay kiiwam war nañ fi mën a jaaw ñëw teewal ko incha allah. maa ngi tudd uh, Adja Soda Ndiaye waaw journée bi de dañ fi ñëwoon ak ak ak xol bu tàng lañ doon ñëw ñuy ñëw dañoo meroon suñuy sol fees ñu jaxasoo waaye bi ñu yëgsee gis mbooloo mi ñu fi fekk gis pas-pas gis si jullit yi lu mettoon suñuy xol sedd na. kon bés bi daal ñun rafetlu nañ ko ndax giifal na suñuy xol ndax delloosi nañu te yokk na sunu ngëm ne islam dara du ko daanal. Seydina Mouhamed dara du ko daanal sallallahu alayhi wa salam waaw xanaa di gis ne rek euh, bu ñu gisee gouvernement bi la majorité sont des musulmans Macron est un président il a osé offenser l'islam donc man dama gis ne gouvernement bi majorité nekk ay julit tey rafetoon na seen teewaay fii ndax ñoom seen bopp le président turki def waroon na leen tey au-delà d'être dans le gouvernement ce sont des musulmans